constitution mais quand def nga ay post pour revenir sur la sortie du président euh, Diomaye ak yi ñu ci doon yi ñu ko doon xaar évidemment mu wax ci te waxu ci ak euh, sa xalaat jàngat ci euh, compte rendu bi mu def ci ak face à face ak la presse maintenant c'est l'occasion nga wax ñu yow sa xalaat déjà ci boobu la exercice. voilà ban analyse nga ciy def lu njëkk. <coughs> non pour l'exercice comme ni nga ko waxee c'est quelque chose d'intéressant. Mm-hmm. parce que dafa permettre Sénégalais yi. xam ka mooy ñiitu réew mi depuis les élections c'est vrai que dégguñu ko Ousmane Sonko mooy wax mooy déplacé wu moom ngay dégg le plus souvent donc euh, ça permet à beaucoup de Sénégalais gis la personne c'est qui Diomaye fay Sénégal nag dana war a xam ne Diomaye Faye du président Pastef mais président Sénégal tout à fait tamit dafa war a xam ne du militant Pastef moom génn na Pastef moo yilif léegi Sonko Sonko yilifu ko da kaa war a xam. c'est ça. mais li may njëkk wax rek mooy. Mhm. Diomaye dafa permettre. Mhm. tey Sénégal yi am ay références. parce que tey ku nekk si village am. Mhm. il y quelques mois wala quelques années. dafa doon xalaat ne man mënu ma nekk président de la république. tey dañ ne su dee Diomaye mën na ko nekk man mën naa ko nekk ëllëg. donc am na lu mu yee si benn parti jeunesse bi. mais malheureusement nag dans sa communication. nu mu waxee. Mhm. dafa mel ni moom du chef d' état si Ousmane Sonko le chef d' mhm. dafa mel ni ba léegi dafa nekk si discipline parti. Mhm. les autres problèmes que Sénégalais doon xaar mooy maanaam les problèmes actuels. tontu aussi te loolu mun ma ko si blâmer parce que ñoom ñoo ne ñu programme. donc ñu dañuy xaar ba septembre jot programme su amee peut-être. si ne ñuy gën a am visibilité ne ñii lu ñu nar a fas yéene def si cinq années di ñëw. Mm-hmm. mais luy wàllum courant beeg ndox mi meeg wala location wala emploi des jeunes. Mm-hmm. amaguñ ci ay réponses. waxagu ci waxagu ci. Mm-hmm. leneen lu ma bëgg a yokk nag vraiment si son discours. c'est que ñun ñoo ngi ko doon euh, vraiment xaar si les promesses de campagne. moom waxoon na ay caisse noire du ko laal waxoon na waxoon na waxoon na waxoon na waxoon na. li mu waxoon bëri na. <laughs> trop moom la xale yi dax di wax vaar. Mhm. vaar yi bëri na parce que c' vraiment dommage tey nga ñëw promettre ñu benn gestion vertueuse et sobre. Mhm. c'est qui en commençant par les appels à la candidature. Mhm. ne les fonds politiques baaxul tey nga ne da nga koy jël mais da nga koy changé bi. xam loolu tamit ñuy wax góor sa kàddu. mun wax ne li baaxul tey nga ne da nga koy jël. dégg naa sax ñu ne les gestion pétrole da nga kaa bëgg yóbbu au niveau de la présidence dina ko si FONSIS. loolu c'est opaque duñu xam xaas bi fu muy dem. ñoo ngi gis fu ñu wax sobre bi gisuñu ko parce que yéen a ngi doon ay auto Audi A8. c'est des voitures qui coûtent plus de cent ngeen koy daw dawal. donc yàq bu ñu fi gisoon. rupture boobu amul gisuñu rupture boobu. di nommer ay nit yoo xam ne amuñu compétence contrairement. à l' appel euh, à la candidature ah, ñoom tamit yooyu ñoo ngi koy gis ba léegi donc am na lu bari ñoo ngi koy gis sénégalais yi ñoo ngi commencé am xel bu teey dafa mel ne lii dañuy pàccoo euh, ñoo ngi yàq xaalis réew mi mm-hmm. vraiment xamuñu fu ñuy dem et cetera et donc am na benn relation de confiance boo xam ne amoon nañ ko mm-hmm. ñoo ngi koy commencé di perte man nag maa ngi koy ñaanal mu delluwaat si xelam vraiment mm-hmm. espérons que septembre su jotee ils vont changer les choses jël bu baax bi mais pour l' instant. Hmm. yoon bu bon bi lañ jël. yoon bu bon bi lañ jël alors est ce que vous êtes d' avis Keba par rapport ak euh, analyse boobu et surtout euh, moom le président mi ñu doon xaar. Euh, ci point yu bëri bëri bon certains vont me dire que ne mënul wax ci lépp ci ab ci ci ab ndaje mais des questions aussi importantes que wàllu immigration marchand ambulant yi ak seen i jafe-jafe immigration clandestine bi baisse du loyer ni mu ko waxee moom monsieur Thiaw inondation yi président waxu ci ban jàngat ngay def ci ci ci wàllu voilà merci beaucoup encore euh, mon frère Mohamed. Mm. et je pense que am na benn je pense que démarrage boo xam ne émission bi bu ko jëlee man ci sama dégg-dégg ça me permet automatiquement de comprendre que ces gens là xëy na tey dañoo jël benn posture boo xamante ne ni il de cela quatre mois voire dix ans en arrière ñun ci position boobu la ñu nekkoon. cest à des opposants mm-hmm. quand tu es opposant naturellement. les trains qui viennent à l'heure ne vous intéressent pas. Mm-hmm. donc lii gën a nekk mooy xool li nga xamante ne peut-être ce sont les failles du gouvernement nga mettre ko nga nga ko exposer pour que les gens mën a comprendre mhm. donc man je comprends véritablement leur position man nag peut-être tey sama position dafa changé mhm. parce que aujourd'hui je suis appelé à diriger ce pays là donc les questions auxquelles man dama ci doon waxtaan ak sénégalais yi ne leen nii ak nii ak nii laa gisee mhm. tey je suis obligé d'être dans la mise en œuvre a commencé te mu nekk lu am solo mooy tey dañoo nekkoon ci benn moment boo xamante ne nii en janvier 2014 bi Pastef di taxaw euh, dañu amoon njiit bu tudd le président Ousmane Sonko amoon ci ay collaborateur am ku tudd Bassirou Diomaye Faye mhm. ñu mën ci tudd Birame Souleye Diop ñu mën ci tudd ñeneen ñi nga xam ne ay responsable lañ au niveau national mhm. donc ci biir loolu sa politique en premier lieu c'était de passer à une phase de déconstruction qu'est-ce que je veux dire par là c'est-à-dire tey dañu amoon un président boo xam ne dafa jàpp ne moom avant muy mën a wax ak sénégalais yi lan mooy mbëbëtam lan mooy programme am lan mooy gis-gisam pour Sénégal. Mhm. il fallait en amont mu wan sénégalais yi que ñii nga xam ne ñoom ngeen dënk réew mi. Mhm. yorewuñu ko ci anam bu baax. Mhm. loolu moo waral les révélations yi nga xamante ne nii nekkoon na des révélations fracassantes. sénégalais yëpp doon xaar ñu porté ko ci plainte. yóbbu ko bi tëj ko. parce que am na ci yenn révélation yoo xam ne boo ko defee dans un état sérieux la personne doit être interpellée par la justice ñu laaj ko li nga wax yan preuve nga ci am yoo xamante ne ni ce des preuves tangibles bu fekkente ne apporté woo ko ñu jël la nëbb la jant bi mm. mais par la grande surprise les gens ont vu que ndekete yow le président son Sonko li mu doon wax démb ak bërki démb dafa nekkoon des preuves irréfutables ba tax amu ci benn kàddu boo xamante ne nii mës na ko génn jibal ko ci askan bi mu nekk loo xam ne après topp nañ ko ci ba war ko cee mën a damm donc cette phase de déconstruction la dafa nekkoon un moment important pour le parti alors bi ñu ci jógee ñu yegg si dans les élections bu fekkee damay bàyyi les élections législatives de 2017 mhm. on vient dans les élections présidentielles de en ce moment là Ousmane Sonko avait vu que moom li nga xam ne mooy la phase de déconstruction bi mu bëggoon mhm. atteindre na sa cible c'est-à-dire la population sénégalaise mais en particulier la jeunesse mhm. alors loolu amee il nous a proposé quelque chose lan la ñu proposé un livre mu tuddee ko solution et je pense que tey il est bon parfois. Mm. bu fekkee da nga bëgg a critiquer nit ki si li mu la waxoon démb il est bon nga def un tout petit une introspection pour xool lan la la proposé woon. Mm. parce que je me dis que pour c'est pour des gens qui disent que Ousmane Sonko dafa waxoon dafay supprimer des fonds politiques wala affaire yooyu je pense que da ngaa demul lire. le programme bi nga xam ne mooy solution parce que il avait clairement expliqué la manière bi nga xamante ne nii tey la président Macky Sall moom la yore woon li nga xam ne mooy lee fonds te moom mu jàpp ne loolu dëppoowul ak yoon jël lu tolloog huit milliards jël ko jox ko benn doomu aadama ne ko nag léegi ci yow la des xoolal noo ko bëggee noo koy defee kenn du la contrôler kenn du la toppatoo mm-hmm. bu la neexee taala bu la neexee mayel moom jàpp na ni ci biir livre boobu noonu du noonu la ñu war a yore les fonds yi nga xam ne moom la ñuy destiné au président de la république ah. koo xam ne bañ na ko ba pour gérer la transparence de ces fonds là dem na ba nee na nekkul affaire boo xamante ni dañ koy jël exclusivement pour le président mais ah. war na mën a am autour de trois voire quatre personnes yoo xamante ne nii ñoom dinañu xam vérité